ngeen xam ne li ko sabab mooy bàyyi ko bi fi bàyyi ko bàyyi sëñ Cheikh Fall jëmb jóge te mi xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ñëwoon nag fii ci kër sëñ Cheikh Khadim Fall mi nga xam ne kenn la ci taalibe maam Cheikh Ibrahima Fall yi kenn la ci taalibe Serigne Mor Talla Fall yi ñu ñëwoon doon taataan ci ay kaddu ci moom ci sang bi fi jóge waaye itam doon taataan ay kaddu ci ñaan muy ñaanal sang bi nga xamante ni moo fi toog di bàyyi sëñ Cheikh Amdi Fall kon ñu ngi jàkkaloo ak Serigne Cheikh Khadim Fall Serigne Cheikh Khadim ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziare. di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi yan kaddu lañu mën a taataane tey ci Serigne Cheikh Khadim Fall yu jóge yoo xam mooy kaddu yu témoignage ci Serigne Cheikh Fall jëmm moom fii bàyyi ko. ginnaaw bu ñu sant yàlla sunu ngi sant Serigne Touba bu baax di sant wax nag kaddu yoo xam ne. kàddu yu néew lay doon ndax wax ci sa kilifa moo yombul waaye nag nit ab tolluwaayam dana tax euh, loo ñàkk-ñàkk xam mbaa loo ñàkk-ñàkk man soo taxoo ci moom rek da am lambe ci moom da am loo daj Serigne Cheikh Fall jëmm nag wax ci moom mooy ne cër mënta weesu bokk ci Seex Ibra Faal waaye nag bokk ci ñu wuutu Seex la loola ak cër la ci biir cër yi te yàlla sunu borom cërale na ko lool moom li nga xam ne moom lan dégg ci moom te mu doon lu wér ndax lu ñëpp wax la te daana wax waxal boppam mooy ne woy juróom Cheikh Mouhamadou Moustapha Fall bi nga xam ne moo njëkk a wuutu maam Cheikh Ibrahima Fall nekkoon nag moom ba am ngërëm sëriñ biit joxoon na ko sëñ Ibrahima Kane doonoon kenn ci njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall jaar na it ci loxoy El Hadj Mouhamadou Falilou mbakki mi nga xam ne bi sëñ Modou Moussa Fall nekkee di maam Cheikh Ibra sëriñ Fallou di liggéey jumaa sëriñ Touba ji ñam laajoon sëriñ bi mu joxe ko ci njabootu Cheikh Ibra ci Baye Fall yi sëriñ Cheikh Fall jëmm la sëriñ bi jël jiital ko. ngir wax ne moom ci boppam bu sañoon day futtikul boppam liggéey kon nag su yëkkatee dara tam joxe ko mu ànd ak taalib yi loolu firndeel na ne la mu waxoon def na ko sëriñ bi nekk na ko ba am fa ngërëmul sëriñ Touba Alaaji Mouhamed Khalil Mbacke am fa kilifaam gi nga xam ne mooy Cheikh Amadou Moustapha Fante moo ko fa ci biir loolu it dégg ngeen mbëkki dem rek seede yi wax ne amoon na lu mu lu mu jànkoonteel ci liggéey jumaa ji mu saxu bi nga xam ne ci sooroor bu mag bi la woon mu daanoo ci ak la ca xewoon lépp te loolu lépp sàkk ngërëmul yàlla ak ko mayoon loolee nag ba mu koy sàkk ba yàlla suñu borom dogal Cheikh Mouhamadou Fallou Mbacké gërëm ko te ko delloowaat way juróom Cheikh Mouhamadou Moustapha mu nekk ak moom ba mu làqu ci ñëpp wutu way juróom ci Serigne Cheikh Fall Baye Boulo mu nekkoon ak moom di magam bi ak Serigne ba mu làqu ngërëm buñ ko noppee gisi ànd ak sëñ sëñ nga xam ne moom itam moo njëkk a wuutu maam Cheikh Ibrahima Fall ci ay sëtam mu ànd ak moom di liggéey liggéey sëriñ Tuubaa bi ba lax ngërëmam waaye ci biir ngërëm yooyu mu lax nag da cee laxaale ay ngërëm ndax bi mu àndee juróom ba bi juróom lax ko ngërëmul sëñ Fallu laxaale na ko door a am ngërëmul sëñ Fallu bi sëriñ bi demee mu ànd ak sëriñ Cheikh Fall bàyyi góor ngërëm yi sëriñ Cheikh Fall bàyyi góor làq yëpp làqaale na ko bi mu àndeek sëñ Modou Aminta Fall mi it te fekk booba Cheikh Abdoul Ahad moo fi nekk di xalifab Serigne Touba ba muy lax ngërëmam laxaale na ngërëmam moom itam bi nga xamee ni sëñ Abdoul Xaadar Mbacke ñëw na it bi sëñ Modou Aminta di lax ngërëm loola ci sëñ Abdoul Xaadar Serigne Cheikh a ngi woon ci ginnaawam di jëwriñam laxaale na loolu ngërëm bi nga xamee ni it Cheikh Saliou Mbacke ñëw na sëñ Modou Aminta Fall ànd ak moom liggéeyub xel koom ji tàmbali ci atum 1991 mu ànd koog moom. taxaw ci xel xelkoom yi ba sëriñ Touba Cheikh Salihou Mbacke gërëm sëriñ Modou Aminta Fall muy ginnaaw bi mu wàccee ab liggéey ci 2006 booba ay ngërëmam ci biir mu door nag yanu yanu maam seex Ibrahima Fall bi nekk di xalifa wuy juróom Cheikh Mouhamadou Moustapha doll ci di xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall yor ko at yi mu ko yor at yi mu ko yor nag eh, li ma ci mën a seede mooy ne njabootuk Cheikh Ibrahima gépp maase nan xam ne sëñ Cheikh Jëmb amul kenn ku bokk ci seex Ibra Fall koo xam ne mas ngaa am bis euh, rek mu dënniir lu ca képp koo xam ne ci seex Ibra nga bokk bis boo am sëriñ bi yable na ca ñi nga xam ne ay kilifa lan ba àgg na ci mën naa teew ci ñoom bokk jotam maye daawul dënniir lu lépp kenn teewe na lépp ku taxaw woon njabootu Cheikh Ibra Fall bi la taxaw yu wu rafet wëlbatiku it jox leen kenn ku nekk ab cëram ak wàccuwaayam ndax mësta def dara loo xam ne ndigal loolu bàyyi koo kër Serigne Touba te dajale wut njabootu Cheikh Ibrahima Fall gépp diisoo caag ñoom waxtaan caag ñoom jox leen ci ay ndigal lu mu mas a nekk rek woo na ci njabootu Cheikh Ibrahima Fall gi ànd na ko ñoom loolu moom maa ngi koy seede bari lu ma ci fekkee eh, te ànd ñoom bi loolu jàllee it li nga xam ne nag mooy liggéey bi te loolo taxoon yàlla andi nu àdduna muy jaamu ko te liggéeyal ko loolu lim ci def. ci ak xilaafaam euh, fi mu jëlee yan bi ak fi mu ko yenni ko ku ko xool xam ne yokk gu rëy rëy am na ci seede si mujj nga xam ne moo mujj mujj mooy tabaski yii ñu weesu rek junni xar la joxe taarixu yoonu murit moo ko ci njëkk joxe kon loolu doy na taw fee sëñ mudu Falilou Fallit fi mu bàyyi woon ndaguy kër Cheikh Ibrahima moom sëriñ bi bi mu ñëwee yokku na limum ndab ya ba noppi yokk ndab yan ko doon def ba mu gën a rëy wëlbatiku it soppi melokaan wa ba amatul dara lu cay rax lu dul ndawal kese loolee nag taxawaay bu rëy la boo xam ne ndimbalul yàllaa ko man ndax ci saaxir bàyyiwu fi takk bàyyiwu waaye bàyyi na fi jëf joo xam ne maanaam bari nañu bàyyi ak njaboot te seenub liggéey sontoowul noonu aggul noonu te ànd ak jëf ci li muy rëy rëy rëy rëy ak li bari bari mosut a génn fenn di laaj lenn benn béréb rek lu toog loolu nag ndimbalul Serigne Touba la moom ak maam Cheikh Ibrahima ba boroom defal ko ndam yu kawe yi mu am. bi mu toogee ak tayit ki nga xam ne moom la fi fekkoon mi Cheikh Saliou Mbacke donte yàgguñu fi am na ngërëmam bi mu ko noppee gis rek ki njëkk a toog di xalifu Serigne Touba muy El Hadj Mouhamadou Lamine Baara Mbacke Falilou mu ànd moom ba am ngërëmam noonu la àndee ak sëñ Cheikh Sidi Mokhtar ba am ngërëmam. ànd ak ak la mun Mountakha mii nga xam ne moo ko gërëm bërki démb ñaanal ko jëbal ko yàlla boroomam keroog ca guddi seede ya nga xam ne moo jóge ci kër Cheikh mun Mountakha mooy ne wax na ne ndaw yi nga xam ne ñoo ko mujj indil addi yow tisbaar lañ ko fa indi te bi tàkku sandi jot yàlla suñu borom ñëw akub dogalam wax na ne it sëriñ bi wax na ne mi ngi fàttaliku lam déggoon na Cheikh Ibrahima Fall loolu daa jëflante ak sëriñ Touba. ci sëñ Cheikh jëmb la ko mooy ndaw yi dañuy tiifonte ñii dañuy ñëw di andi buñ demee ñeneen ñëw waxtu wu nekk addi yaa ngi jeg ci moom di tàbbi ci Serigne Touba ku amoon taxawaay la ci liggéeyal Serigne Touba ak Cheikh Ibra waaye defal nañ ko ci ndimbal ak tawféex loo xam ne neewaa na ko ko am den mën a wax daal mooy ñaan yàlla sun boroom mi nga xam ne ku ko liggéeyal mu añal la yàlla na ko añal ci àjjanay si boole koog maamam ju baax gi maam Cheikh Ibrahima Fall boole koog wuy juróom bu baaxul Cheikh Mouhamadou Moustapha te boole ko ak xaadimu rasul mi nga xam ne moo taxoon ñu doon liggéey boole koog yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi ne li nu xam ci moom ci lu baax eh, buñ ko doon wax fii ba suba it du mën a jeex waaye daal ku baax ku gëm Serigne Touba ku gëm maam Cheikh Ibrahima Fall ku nangu woon a liggéeyal Serigne bi koo faloon boppam séddul dara ci boppam cëb cër. ba cërub yàlla bi ñëw ci moom mësta seet dara ci cër ci boppam ba cërub yàlla bi ñëw ci moom mu xëy doon Cheikh Ibra Fall ah, euh, ku bokk ci Cheikh Ibra nag cër bu gën a rëy xëy ñu ne la yoway Cheikh Ibra nga koy liggéeyal amul bokk ci Cheikh Ibra doy na waaye loolu nag geneen jagleel ni ma ko waxee loolu daal bokk na ci kàddu yi nga xam ne moom xam nañ ko ci sëriñ bi mbokk yi bu ngeen déggee kàddu yooyu nga xam ne moo jógee ci sëriñ Cheikh Khadim Fall muy ay seere yoo xamante ni seere na ko ci baay sëñ Cheikh Jëmb te li wolof yi di wax ne bu ñu waxee ne diw baax na dañuy wax ndax bokk yaa ko wax ku ko dégg kàddu yi mu seere ci sëñ Cheikh Jëmb da ngay xam ne kat moom mii wax li muy wax du waxu fortu kon dañu wax ne rek ñàkk nañ ko baax ñàkk nañ ko sell ñàkk nañ ko màgg ñàkk nañ koo xamante ni ku gëmoon Sëriñ Tuubaa la waaye ñàkk nañ ko gëmoon maam Cheikh Ibrahima Fall di ñaanal ko sama borom yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gii fi des tàmbalee ci sëriñ am Amdi mi nga xam ne ci tey moo fi toog nekk ab xalifaam yàlla sa borom tekki ñoom loxo te sàmm leen bi barakati Cheikh Ibrahima Fall waaye nag ñu tàllalaat sëñ bi micro moom itam mu defa wax ñu maanaam mu ñaanal ñu suñu kilifa gii nga xamante ni moom moo fi toog tey di Serigne Cheikh Amdi moom sëñ Modou Mbène Fall moom itam nga xamante ni moo fi nekk tey di xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall sëriñ bi bisimilah. waaw sëriñ bi moom itam liñ mën a wax ci moom. lu lu gàtt la waaye lu dëgg rek lay doon mooy moom itam àndoon na ak way juróom di sàkku ci moom ngërëm ba noppi koo gis ànd ak ay magam ñaari magam yi nga xam ne moom la wuutu biñ fi nekkee ba jóge fi mu xëy doon Serigne Modou Mbenda moom itam di liggéey moom itam di liggéeyal Serigne Touba ak Cheikh Ibra ba xëy tey muy Cheikh Ibra Eh, jëf ji démb dégg ngeen ko féetale na boppam seex ma Cheikh Mouhamadul Mountakha jox na ndigali taalib yi féete na noog moom kër Cheikh Ibra Fall tànk kanam la am amul yu ginnaaw loolu Cheikh Ibra ko liggéeyal Serigne Touba moo ko fayee loolu léppam day jàpp te dara am du yàqu yàlla ko yàlla sama boroom yàggal mu defal ko kon gudd ak wér-gu-yaram mu yàgg ci kanam njabootu Cheikh Ibra gi te moom itam yàlla defal ko tawfeex yi mu mën a liggéeyal Cheikh Ibra ne ko way juróom yi ko jiitu woon liggéeyale ak magam yi nga xam ne ñoo ko jiitu woon liggéeyale ba ci sëñ Cheikh nga xam ne moo dëddu barki dem bi ndam yéen am ak ngërëm yéen am yàlla yàlla sama borom doxal ci barke maam Cheikh Ibrahima dama ci wax ñaari kàddu yoo xam ne kaddu yu sedd la ci sama biir wax léegi nee naa sëriñ bi yàlla suñu boroom dogaloon na bàyyiwu fi ak leer waaye dafa am ñaari nit ñoo xam ne mën mëneesu leen ñàkk tudd limaale leen ci taarixu sëriñ bi euh, di fekk àdduna fàttiwul sëriñ bi du leen mas a fàtte muy ko tudd Maguey Niang ak Omar Dumbuya ñooñu taxaw nañ sëñ bi taxawaay boo xam ne ban bàyyee seen lépp ànd seeg sëñ bi booba sëñ bi doonagul woon Cheikh Ibra doonagul Cheikh sëñ Mourou Moussa ba suñu dogal sëriñ bi ñëw ñaar yëpp daje ci moom ci benn bis ñu ànd ak moom ba bërki biig ci bisam bu mujj bi ba démb ba bisub tey bii ci taxawaay jógunu ci taxawaay yooyu ñooñu nag warees na leen a santal Cheikh Ibra ndax Cheikh Ibra amoon ndawam lu mu bàyyi àdduna mu am lu mu mënalut boppam am ñu ko war a mënal kon ña ko mënaloon war nañ leen a sant kon ñooñu yal na leen yàlla gërëm te taw feexal leen ci doole sëriñ Touba ak Cheikh Ibra coono yéen doon sonn it yàlla bu leen réer